di Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne moo jëwriñu màggalu Kazu gi mu jëlee ndigal ci kilifa kër gi jaar ci jëwriñam muy sëriñ Bachiru di jëwriñu sëriñ Abul Baraka ndigal li bàyyi ca Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di borom màggal gi moom itam mu jëlee ndigal ci ki nga xam ne mooy Cheikhul Xadim di Cheikh Mouhamadul Muntaqa ngir ñu am ndigalul waajal bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu séentu muy laylatul israa wal miraaj di doon bis boo xam ne sëriñ bi daa wax ne saa bu ñu ñëwee nañ fàttali bis bi ni mu toll ci lislaam di bis boo xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala jële woon soppeem ba di sallallahu alayhi wa sallam jële ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa doon loo xam ne alquranul karim moo ko nettali taarixal ko wax la nga xam ne moo ca xewoon wax fam xewe woon wax nam xewe woon nga xam ne kon waxtu wuñ jànge alxuraan rek war nañoo fàttaliku bis bu tedd boobu yi sunu boroom jële ci sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir mu doon taraanga joo xam ne sunu boroom mësu koo defal kenn ci ñu tedd ñi ci eh, yonent yi ak anbiya yi li ñu baax baax li ñu tedd tedd teraanga jooju sallallahu alayhi wa sallam moo ko mas am mooy rañaane ko guddi yóbbu ko masjidul aqsa yéege ko nag ca fa ko soob ci péyam yu kawe yu mag ya foo xam ne kenn mësu fa àgg mu jege itam borom bi subhaanahu wa taala jege goo xam ne kenn mësu koo jege noonu te loolu alquran moo nu ko wax fa kaana qaaba ni aw adna nga xam ne bu ñu doon wax xala ñu xamul xala mooy li ñu tudde arc diggante ñaari bopp yi ni mu jege noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jege woon borom bi subhaanahu wa taala te loolu kenn mësu ko am loolu ci guddi gii la amoon bi mu demee itam mu teral ko fa jox ko sërica muy sërica boo xam ne mooy lislaam ndax mooy ponk bi gën a am doole bi gën a rëy ci lislaam mooy julli borom bi subhaanahu wa taala farataaloon ko muy juróom fukki julli mu wax na ne ko na nga ko yóbbu ca sa xeet wa ñu dima ko defal waaye bi muy wàññiku ndax ba mu dem romboon na mboolem ñu baax ñi nga xam ne ñooy boroom daraja yu kawe yi ku ci nekk mu nuyu la fu mu dem ñu teral ko màggal ko fa jox ko fa ay ay daraja ja ko yàlla jox moom itam bi mu dellu si ci mbaaxam ku mu rombaat waxtaan ak yow ci yoonam ak sëricaam nga ne ko loolu diis na kon sàkkul ci sa borom mu woyefal ko mu def mu sàkku ci boromam mu woyefal ko ba mu des juróomi julli juróom fukk la woon waaye mu wàññi mu juróom te bu delluwaatoon sax xëy na mu demee neneen waaye nag mu ne kon ku ko def da nga am yoolu juróom fukk yooyee ku mu neexit mën ngaa coobarewu nag ngir sant sa borom ak yokk sa jaamu nga def ba muy juróom fukk waaye ay nawaafil lay tudd kon muy bis bu màgg boo xam ne bisub lislaam la sunu eh, cheikhul xadim radiallahu anhu moom itam leeral ñu xew-xew ya ca am ndax lépp da koo jëlee rek ci alquran ak sunna wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmam la borom bi rañaale muy kéemaan gu gën a kon gu a kawe yóbbu ko ba fa soob jox ko sëri caam bu tedd bu màgg boo bii yàlla dogal nag kon ñu euh, mu baaxe ñu ci itam baaxe ci cheikhul xadim radiallahu anhu cheikh mahamadul fadil feeñ ci guddi gi muy guddi gu màgg goo xam ne mooy guddi gi gën a am solo ci taarixu yonant bi sallallahu alayhi moom itam mu ñëw nag bokk ci njabootu cheikhul xadim waaye sunu borom cëral ko itam cër yu rëy rëy ci cër yoo xam ne dafa mën nees na koo méngale ak guddigoo gi mu doonoon guddi jaamu yàlla ndax ci la borom bi subhaanahu wa taala farataale jaamu yàlla doon guddik xarbaax ndax xar baax gu tal noonu mësta am ci lislaam doon guddi goo xam ne itam guddi guddig yiw la guddig ñaan la guddig taraanga la guddig nangu ñaan la kon loolee la njaboot gi di barkeelu gannaaw bu ñu amee ndigal di ko fàttaliku bokk ko ak mboolem jullit yi mboolem bindeef yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk waxoon naa ko alquran la du sàppi waxtu wane mënees na ko wax borom bi subhanahu wa taala daf ko yónni ci mboolem bindeef yi yónni ko mu doon yërmande ci mboolem bindeef yi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñoo ko bokk Cheikh Mamadou Fadal nag dafa ñëw jël ci jikko yooyee jël ci taraanga yooyee jël ca bis boobee mu doon bis boo xam ne itam mën nañoo wax ne sunu boroom wala Cheikhul Khadim da ko fayee Cheikh Mamadou Fadal ndax sëriñ bi moo digle woon màggal gu mag gii ñuy def ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moo ko daan defal boppam waaye nag woote gi Touba Cheikh Mamadou Fadil moo ko ko defal waaye Cheikh Mamadou Fadil itam bis bi moo ko daan def bu ñëwee mu dem Daaru Salaam gi nga xam ne fa la feeñe woon moo magam ju baax ji Cheikh Mahamadul Moustapha dem fa fanaan fa fekk fa mbokkam ma di xaritam ba Cheikh Mahamadul Mamoun bu ko defee jokk ak bokk waxtaan fa ak moom dellu siwaat jaar kër sëñ Afi Ahmadou Ñang mi nga xam ne moom itam magam la bu nu ci jógee nag mu dellu këram loolu nag gannaaw bu mu fi bàyyi ko moom itam Cheikh Mamadou Moustapha Falilou moo ko wooteel guddi gii nga xam ne mooy euh, Kazu Rajab di al isra wal mi'raj ànd koog rakam ja Cheikh Mahamadul Amin mi nga xam ne moom itam mbiram dafa dugg ci guddi gi moo tax bu ñuy waajal Kazu Rajab ñu ngi waajalaale màggalu alhaaji Mahamadul Amin Baara kon loolu mooy taarix bi nga xam ne moo tax Kazu Rajab euh, sëti Serigne Fallou itam am ci taxawaay boo xam ne Serigne Xaadim junj na ko léegi saa bu ñëwee dañuy dañuy def ay waxtaan ndax day bisu diine dafa fees dell ak lislaam ñu fas yéene nag weer wi saa bu teroo rek ñu di ko dundal ci lislaam buñ sañoon bis bu set danañ waxtaane diine waxtaane fàttali konte fàttaliwaat bis bi fàttali màggaayu bis bi fàttali xew-xew bi fàttali ko Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo ci feeñoon ñaanal ko ci ñaanal ca sangam ba Cheikhul Xadim radiallahu anhu ñaanal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ci mboolem bindeef yépp ñuy def at mu jot nag ñu tànn tomb boo xam ne moom lañuy waxtaane bu njëkk ba al muridu saadiq lañ tànnoon muy ak taalibe wala ab murit saadix waaye loolu mooy al imaan manis na ko dëppalee ak loolu bu ko defee ñu waxtaane ko seet nuñ ko gën a yaatale bañ man caa jariñu at ma ca topp ñu waxtaane xam-xam ndax bis bi bisub xam-xam la ndax li ci borom bi subhaanahu wa taala xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësu koo xamal kenn fa awxaa ila abdihi ma awxaa muy bisub xam-xam boo xam ne moo tax ñoom itam ñuy tànn tomb boobu di ci waxtaane njariñul xam di ci soññee ndax Cheikh Amadou Fadil tam borom xam-xam la woon bu mag a mag a mag ndax ni ñu xamee borom xam-xam yëpp mën nañ koo xam ci moom mooy ku jàngoon la woon ku bind lu bari bàyyi fi la woon lu ñu bari xamul bindkat la woon bu mag a mag a mag a mag xam da koo jege woon nga xam ne fu mu ko soobee rek mën na koo jëfandikoo am na borom euh, booykat bu ma sa wax ne ilmi ma yi yam ma yam yanfau nii nee na sama xam-xam doonul lu may lu may jëli wala lu may seet fu ma soxlaa rek mu daal di teeg sama kanam Cheikh Mamadou Fadel noonu la meloon ku ma sa bind woy arab jox ko li gën a jafe lu woy ya neex-neex dafay daal di wëlbati kaydoo baxru ba nga binde wala xaafiya ba wala na nga binde woon ci la lay tontoo du xalaat du du du ko kii loolu ñu bari xamuñu ko ci woon moo tax sëdi itam daaw ñu doon waxtaane xam-xam ak ni xam-xam toll ci lislaam ak ni mu toll ci bindee yi ni mu toll ci doomu aadama yi ndax aaya bi njëkk wàcc ci alquranul karim mooy iqra cheikh mahamadul muntaxa mii fi toogal cheikhul xadim itam bi mu ñëwee fi mu bëgg a tàmbali ab liggéeyam mooy loolu moom itam defar nit ñi te mooy yar leen jàngal moo tax daaw ñu woon xam ren itam ñu tànnaat beneen tàmb ñoom sët yi bëgg ko waxtaanee te mooy liggéey ndax kat sëriñ bi dafa wax ne Cheikhul Khadim xam-xam ak liggéey ñooy li nga xam ne ci la nit ki mën a defaree àddinaam defar ci àlaxiraam al ilmu wal amalu jawharaani li xayri yat daareeni ni wax ne itam loolu ci la nit ki mën a jariñoo moom moo tax ren ñu tànn liggéey sëriñ Tuubaa nag radiyallahu anhu saa bu waxee liggéey moom liggéeyal yàlla lay wax mooy sàkku xam ba noppi jëfe ko waaye loolu ba tey mooy liggéey bi ñu wax rek ndax dafa wax moom nag bu dee wax liggéey bi ñu waxtaanee ñun nii moom mooy sàkk lu lew lay wax wala fàgg lu lew wala sabab lu lu lew wala nag ñaan yàlla nga xam ne baat yu yu yu xóot lay jëfandikoo sax ci buy wax ci liggéey moo tax ren set yi tànn ñoom itam liggéey ngir bëgg ko waxtaane soññ ci nit ñi xam ne loolu mooy mën a defar àddina te àddina fi la nit ki mën a waajalee alaxiraam loolu yëpp nag ñu sukkandiku ci Cheikh Mamadou Fadil ko doon jëmmale ndax xam bi wax naa ko bind na bàyyi fi tabax na ay jàngukaay doon na itam koo xam ne dafa daan dimbale ñi nga xam ne ñooy jàng di leen taxaw ba ci daarul maarif islamiya bii nag ci jumaa ji nga xam ne bokk na ci daar yi njëkk ci tubaa Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko fa taxawaloon gannaaw bu jumaa ji noppee borom xam-xam yu bari génn ci ba nëgëni ñu ngi wey di ci génne. doon itamoon liggéeykat boo xam ne lim sanc ci ay tool kenn xamul lu mu toll te lépp dafa daan liggéey waaye lu mu liggéey nag da koy dellowaat ci ko bindee fi mas a jox itam daf koy dellowaat ci yàlla defe naa loolu misaalum jumaay Touba ju mag ji doy na ci ak mboolem dëkk yi nga xam ne sant sanc na ko loolu kon la sët yi bëgg waxtaanee ci guddi gi nga xam ne mooy jiitu màggal gi mu doon waxtu woo xam ne it sëriñ bi mën nañoo delloosiwaat euh, digle wala xutba boo xam ne defoon na ko bi muy wootee màggal gu mag gi ñii ñëw yóbbaloo ko mooy neen ni tax ñu buñ ñëwee nañ ko dundal ci tudd yàlla nañ ko dundal ci tudd yàlla mooy dikrullahi ak istixfaar mooy jégalu borom bi subhanahu di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jàng alquranul karim jàng xasaay di cheikhuna alxadim yi nga xam ne génnut lool yi moom yooyu mu wax rek mooy tudd yàlla julli ci yonent bi jéggalu borom bi subhanahu wa taala kañ ko maggal ko yooyu rek mooy xasaay di mu wax ne nañ ko dundale ci noonu kon ak nag siyaare itam ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi kon loolu Cheikh Mamadou Murtada ci ndigalu kilifa yi mu ngi koy fàttali ñuy màggal si mu xam ne kon noonu la ñuy màggale màggalu Kazu Rajab di ko màggale woote cheikhul xadim radiallahu anhu mu doon nag xew-xew boo xam ne dafa ñëw ci fekk ay jamono yu xew-xew loolu gën na ñu la koy fàttali mooy eh, ay gone yoo xam ne dañoo dañoo réer mënuñoo wax ci luñ nekk mu doon lu tiis nag ndax dafa xew ci kër gi am ñaar la sax am na kuñ may waxaat barki dem moo xam ne itam defe naa sax ab leer la boo xam ne bu tuuti la doomi kuñ wax sëñ Ibrahima Kare ak ki nga xam ne sëtub sëriñ bi la ñu am ci jaaxle loolu xam nañ ne yéen a ngi si ndax loolu xam nañ ne seen liggéey la kenn du leen ko fàttali waaw moom mooy sëtub Cheikh moom sëñ Murtada moom Cheikh moom Cheikh Amadou Moussa ne sëñ bi nee na nañ ko fàttali ñu bokk ñaan ndax ab jaam ñaan la am waaye nag nu bokk itam sabablu ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne kat boo bëggee dara da ngay sabablu ba noppi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ma fekk la ca kon loolu la sëriñ bi ne daal nañ ko fàttali ci màggal gi ñaan ñëpp ñëw ni ko sëriñ bi daan waxee te xam ne kuy ñëw na nga indaale say wagaan loolu ay bagaan maa ngi koy àbb Cheikh Amadou Faye nga xam ne moom wala wala fan la kuy ñëw na nga indi bagaan yu rëy rëy rëy te xam ne bisum ñaan la boo xam ne sunu borom du ci delloo yaakaari jaam du ci tas yaakaari jaam ndax yi ci daje fi ñu jëm muy Touba li tax ñu jóg muy dundali ganek àddina ak Cheikh Mouhamadul Fadel santale ci borom bi subhaanahu wa taala waaye nag fàttaliku xew-xew bu màgg bu kawe boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mësta am xew-xew bu ko gën a kawe kon ñu ngi ñaan bu ñu ñëw ci jàmm dellu si jàmm te képp ku ñëw loo fa yaakaar wala loo fa indaale sunu borom defal la ko na nga ko bëggee ci barkeb Cheikh Mahamadul Fadil ci barkeb Cheikhul Khadim radiallahu anhu